mbokki internet Mak TV Sénégal waat nañ leen amaat euh, mbégte àndaat ak yéen comme niñ koy amalee bés jot rek euh, ñu fas yéene dégtal xibaar yi li si gën a fës tey dañ koy nag daal di tàmbalee ak wàllum politique wax nag ci li nga xamante ni moo di euh, clôture des dépôts des maanaam app bi nga xamante ni moom lañ joxoon candidats yi pour rek ñu daal di déposer seen i ay liste foofu yi nga xamante ni mooy ca commission ba ndiki démb nag lañ ko daal di tëj ca ba minuit rek jotee moom nag ndiki démb waaye nag ñi nga xamante ni rek ñoo euh, commission ba ñoom am nañ lu tolloog rek ñaari fan euh, pour saytu li nga xamante ni moo di liste yi nga xamante ni moom la ñuy di euh, candidat candidat yi daal di déposé pour yan rek si war a ak yi nga xamante ni daal ñoo si am ay manquement kon nag mu nekk loo xamante ni 48 heures rek lay daal di doon pour loolee nga xamante ni moo di commission bi chargé loole mu daal di rek saytuwaat liste yi ndiki démb nag xam ngeen ni kii di Soham Wardini moom nag gannaaw ba nga xamante ni ñii di coalition Yewwi Askan Wi daal nañ koy wan wan ginnaaw daal di euh, choisir euh, ki nga xamante ni moo euh, moom nag ki nga xamante ni moo di actuel maire bu Dakar moom nag daal nay dem bootuwaat ca beneen coalition bu nga xamante ni daal moom moo ko sax moom lay daal di boot pour rek ànd ak ñoom jëm ci li nga xamante ni moo di élection locale 2022 yi ñu rek daal di dëgmal moom saxam waat di nag daal di dem ca parti bi di union citoyenne buntu bi foofee nag ki kii nga xamante ni moo di rek soxam wardi ni daal di dem boobee coalition nag ñu xam si ay nit yu ràññeeku ci wàllum politique ba tax na daal euh, jamono ji euh, kooke nga xamante ni moo di euh, Soham Wardini sax ndi ki démb ca guddi rek la daal di li nga xamante ni rek moo di caution pour rek mën a participer ci li nga xamante ni moo di élection locale lu 2022 foofee nga xamante ni mooy ca mairie bu Dakar bi nga xamante ni sax moom a jamono ji moom moo fa rek daal di toogandeegum ca mairie bu Dakar boobee sax la ñuy desandi ba tey ak rek liste yi nga xamante daanaka takku na lool yi nga xamante daal ñoo ngay euh, xeex di xëccu pour rek daal di euh, remplacer kooke nga xamante ni moo di euh, soxam El Wardini moom nag toll na si fukk ak ñaari liste yoo xamante ni jamono jii daal ñoo ngi rek di déposé déposé nañ sax seen liste pour rek mën a daal di conquérir li nga xamante ni moo di rek ville bu Dakar moom nag bokk na si ñi nga xamante ni sax ñoo si gën a ràññeeku mu di rek coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni Abdoulaye euh, Diouf Sarr moom rek la daal di euh, tànn pour rek mu daal di koy euh, jiite foofu yi nga xamante ni mooy ca élection yi pour rek daal di xëccu mairie bu Dakar keneen ko nga xam beneen coalition boo nga xamante ni ràññeeku na lool mu di rek ñi nga xamante ni ñoo di waa Yewwi Askan Wi ñoom nag Barthélémy Dias la ñu rek daal di tabb wàllu askan wi tamit bu ñi nga xamante ni daal mooy bu Abdoulaye Wade boobee moom nag ki mu daal di teg mooy que kii di Doudou boo ko gis-gis moom Pape Diop moo daal di di euh, gëm sa bopp nag moom it euh, Bougane Gueye la ñu rek daal di dégg ba sax bokk na si ki nga xamante ni moo di UC euh, bunt bi bu Soham Wardini ba tey euh, ci xibaar yi la ñuy desandi sax daal di addu wax euh, ci leneen wax ci wàllum politique waaye sax ba tey desandi ak ki nga xamante ni moo di euh, coowal Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moo di Adji moom nag Ousmane Sonko ay avocat am gannaaw ñaari semaine ci ginaw ba ñu demee déposé li nga xamante ni moo di ñaari requête doon sàkku rek ci ki nga xamante ni moo di juge instruction instruction bi mu daal di rek dindi li nga xamante ni moo di contrôle judiciaire bi ñu teg ci ndodd Ousmane Sonko waaye di sàkku pour mu jox ko li nga xamante ni moo di passeport Ousmane Sonko bi nga xamante ni boobu ba tey rek dañ ko daal di nangu loolee nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni am nañ ko kii di procureur de la république di Serigne Bassirou Gueye moom nag dafa rek daal di euh, bañal ñi nga xamante ni moo di euh, kii ñii di ñi nga xamante ni ñoo di rek euh, ay avocat Ousmane Sonko li nga xamante ni daal moom rek lañ doon sàkku moom mi nga xamante ni sax boobee xibaar moom ko ñu ngi ko daal di sax signé daanaka le 3 novembre bii ñu daal di génn gannaaw nag ba nga xamante ni sax deuxième juge deuxième cabinet bi moom moo rek daal di euh, xamal ñi nga xamante ni ñoo di euh, ñii di waa ñii di avocat Ousmane sonk que ni rek euh, loolee daal duñ leen ko rek daal di nangul waaye nag ba tey journal bi di Libération mu ngi ñuy xamal ni rek kii di juge bu kii di magistrat instructeur bi daal moom ba tey moom rek moom moo dese dernier moo bi nga xamante ni rek moom war naa rek mën a topp li nga xamante ni moom la kii di juge instru ki nga xamante ni moo di juge d'instruction bi li mu rek daal di bëgg wala rek mu daal di def leneen. ba tey euh, ci euh, xibaar yi ñu àddu nag euh, daal di wax ci leneen wax nag ci ki nga xamante ni moo di Mouhamed Mougar Sarr kookee nag turam ndi ki dem ba tey bokk na si tur yi nga xamante ni moom la ñu gën a tudd fii ci biir Sénégal li ko waral nag moom moo daal di gagné prix wu Goncourt 2021 ba nga xamante ni moom la ñu doon joxe fële ca France mu di rek benn prix bu nga xamante ni mu ngi ko doon def ci wàllum littérature mu nekk nag ki nga xamante ni moom nag moo ko rek daal di gagné fële nga xamante ni rek mooy ca France Mouhamed Mougar Mamour euh, Mbougar euh, Sarr nekk nag doomu Sénégal bu nga xamante ni moom nag mu ngi rek euh, daal di gagné boobee prix gannaaw rek li nga xamante ni daal mu ngi doon mu ngi ko gagné sax ak livre bi nga xamante ni mu ngi tudd le plus secrète mémoire des hommes mu nekk nag benn livre bu nga xamante ni moo may rek doomu Sénégal boobee mu daal di gagné mille vingt 2021 bi foofee ca France mu nekk nag lu nga xamante ni bonne nouvelle la ci nga xamante ni moo di rek dëkk bi di Sénégal gannaaw nag bu nga moo ko moo ko gagné sax si kanam kanamu ñaari euh, doomu euh, France yu nga xamante ni daal ñu ngi doon rek déem xëccoo ak moom euh, boobee prix loole nag tax ba ñu bëri rek si Sénégal daal di koy félicité maanaam ñi nga xamante ni sax dañu yëngu ci wàllum littérature waaye nag bokk na it ci kii nga xamante ni moo di njiitu réew mi di président de la république ndiki démb ca conseil des ministres bi nga xamante ni moom la doon diriger foofee nag mu daal di fay félicité bu baax a baax ki nga xamante ni moo di Mouhamed Mbougar Sarr ci prix bi nga xamante ni moom rek la daal di gagné foofee nga xamante ni mooy ca France ba tey euh, ci xibaar yi ñu daal di nag euh, addu wax ci leneen wax nag ci trafic de visa yi nga xamante ni Euh, depuis euh, boobu ba tey ñoo ngi koy euh, joy fii si biir Sénégal gannaaw nag ba nga xamante ni coow li nga xamante ni moom moo tegu ci ndodd ñaari député benn Bokk Yaakaar yi nga xamante ni daanaka coow loolee ba tey sax moom fayagul ñu niki démb nag ñi nga xamante ni ñoo di waa brigade bi nag bu nekk fële nga xamante ni mooy ca cité kër góor gi daal nañuy rek démantelé waat benn réseau bu nga xamante ni da doon yëngu rek ci wàllum trafic de visa ñoom nag fi visa yi doon trafiqué moo di ay visa canadien ba tax na rek ñoom ñooñu nga xamante ne ñoo doon yëngu ca boobee mbir nag ndiki démb lañ leen rek daal di euh, teg loxo bu ñu sukkandikoo ci journal bi di l'observateur ci li nga xamante ne moom la génnee niki tey ñooñee nag ñu ngi leen euh, arrêté gannaaw ba nga xamante ne nag daat nañuy jàpp ki xamante ni moom la ñu jàpp ni euh, mooy njiit bi kookee nga xamante ni moo di Sey Gaye moom nag ak ñetti maanaam sax ak ñeenti complice am nga xamante ni ndiki démb rek lañ leen daal di yóbbu foofee nga xamante ni mooy ca prison ba moom nag bu sukkandikoo ba tey ci journal bi di l'observateur mu ngi daal di xam ne ni euh, xibaar boobee nag ñii di waa euh, ñii di waa gendarmerie ñoo ngi ko rek euh, daal di topp gannaaw lu tolloog fanweeri plainte yoo nga xamante ni ay victimes daal nañ koy déposé foofee nga xamante ni moo di sa seeni ay locaux ba tax na rek ñoom ñooñee sax ñu ngi daal di xam ne ni bu ñu estimé koppar gi nga xamante ni ñooñee nga xamante ni ñoo di trafiqueurs yooyee daal nañ koy trafiquant yooyee daal nañ koy sax daal di jël topp toll na rek si cent cinquante millions de francs CFA suñu ay kopp suñu ay koppar ndax kat ñoom ñoo ñi nga xamante ni sax ñoom ñoo def ay jéye boobee gannaaw ba nga xamante ni ñii di waa euh, gendarmerie daat ñuy dem fi foofu nga xamante ni mooy seen kër ca cité kër góor gi dañoo rek fekk foofu ay passeport yu tax yoo nga xamante ni daanaka yëpp ay passeport euh, canadien la waaye yooye ak ay test euh, ak ay test ak ay carnet de vaccination yi nga xamante ni yooyu yëpp ay faux carnet la ba tax na daal jamono ji li ñu mën a jàpp rek mooy que ni ñooñee daal jamono ji ñoo ngi rek ci loxol yoon gannaaw boo nga xamante ni ñii di waa gendarmerie daat nañu leen rek daal di euh, teg loxo. bu ñu euh, jugee ci loolu nag wax ci ñeneen ñoo xamante ni euh, jamono ji nag ñoo nga ca loxoy gendarmerie mu di rek ñoo xamante ni. dañ doon rek déem mbëkk daal di dem fële nga xamante ni mooy ca Espagne loolee nag moo xewee fële nga xamante ni mooy ca euh, Saint-Louis euh, gannaaw nag ba nga xamante ni euh, ñii di ñi nga xamante ni ñoom ñooy marine nationale bi sax moom daat nay intercepté benn gaal bu nga xamante ni mu ngi yeboon lu tollook quatre-vingt-deux personnes doon dem fële nga xamante ni mooy ca Espagne ñu ñuy daal di xamal ni sax quatre-vingt-deux yooyee am na si ñaari xale yu jigéen yoo xamante ni ñoom bokkoon nañ sa boobee convoi ñoom nag ñu ngi leen jàppee daanaka lu tollook quatre-vingt-six kilomètres ca waaxu fële nga xamante ni mooy ca Saint-Louis loole nag mu ngi am gannaaw ba nga xamante ni rek benn avion patrouille bu marine bu marine euh, espagnol bi nga xamante ni dafay euh, nekk fii euh, ci biir dakaar daat nañ signalé ñi nga xamante ni ñoo di waa marine bi pour rek ñu daal di dem jël ñoo ñi nga xamante ni ñoom la ñu gis rek ñuy daal di nekk ca waaxu Saint-Louis yooyee gannaaw gi nag bañ leen daal di tegee loxo ñoom ñu ngi daal di xam ne rek ñu ngi jëlee woon gaal gi daanaka le 16 novembre bi rek ñu génn fële nga xamante mooy ca Gambie dam fa li nga xamante ni euh, mooy ca Espagne leen leen fa mooy que seen gaal gi dafa commencé woon rek di daal di sol ndox ba taxoon rek ñoom ñooñu xamatuñu woon euh, fu ñu jëm heureusement ba ñi nga xamante ni ñoo di marine bi daat lañ leen ñël euh, daat lañ leen jël fekk leen foofee jël leen wàcceewaat leen ci li nga xamante ni mooy ca biir dëkk bi ñoom nag jamono ji ñu ngi ñuy daal di xamal nag amul benn doomu aadama boo nga xamante ni fekk nañ ko mu daal di faatu ca gaal ga wala sax koo xamante ni sonn ndax kat ñoom ñi nga xamante ni ñoo di marine nationale bi daat nay jël ñëpp daat leen andiwaat ci li nga xamante ni mooy ci euh, base naval amiral moo xamante ni mooy amiral euh, Faye euh, Gassama ba tax na rek gannaaw ba nga xamante ni jël nañ leen rek ñoom ñëpp dañ leen mujjee rek daal di teg ci loxol police ba tey euh, ci euh, xibaar yi ñu wax nag ci li nga xamante ni moom moo xew euh, ndikki démb ci guddi fa li nga xamante ni mooy ca Wakaam foofe nag benn lakk-lakk bu métti lañ fa rek daal di nemmeeku daanaka ay boori 3 heures du matin mu nekk nag ca booru niveau ancienne piste bu nekk foofee nga xamante ni mooy ca Wakaam bu ñu sukkandikoo nag ca xibaar yi nga xamante ni am nañ ko mooy braque yi nga xamante ni moom moo nekk foofee nga xamante ni mooy ca ancienne piste bi ak atelier mécanicien yi daanaka moom moo rek daal di tàq ba jeex tàq mooy foofu foofee sax nga xamante ni foofee moo nekk ca wetu aéroport euh, Léopold euh, Sédar Senghor bi ba tax na rek bu ñu sukkandikoo ba tey euh, ci xibaar yi nga xamante ni am nañ ko gendarmerie bi ak waa sapeur pompier nag ñëwoon nañ ca ca saase nag ñii di waa sapeur pompier fexe nañ rek ba daal di neutraliser li nga xamante ni rek moo di tàq-tàq bi daanaka ay waxtu yu taq yoo nga xamante ni nekkoon nañ fa doon fexe pour daal di xeex ak li nga xamante ni mooy flamme waaye nag gannaaw ba nga xamante ni fay nañ laq-laq yi nag li ñu daal di xamal mooy que ni amul benn doom doomu aadama bu nga xamante ni moom jot na see rek daal di euh, ñàkk seen bakkan waaye nag jàpp nañ ni ay euh, matériels yu bare yu taqoo taqu moom daal nañ ko fay ñàkk bokk na si rek euh, ña ay bus ko moomoon sax di xamal ni Jean Montero moo ko moomoon xibaar yooyu nag suñu confrères yi di waa Seneweb ñooñu ko rek daal di ba tax na sax ki nga xamante ni moom moom moom bis yooyu gannaaw ba nga mooy que ni lii mooy ñaari yoon ni daal ay otom ñu ngi lakk foofee te moom sax ba jamono ji xamul lan moo rek waral loo boobee boobee euh, lakk-lakk xibaar yi euh, ba tey ñu wax euh, ci wàllum yoon nag dam ba fa la nga xamante ni mooy ca euh, tribunal bu Dakar ndiki démb nag foofe ca chambre criminelle de Dakar foofe nag lañ doon deema doon lañu doon sax atte mbiru ki nga xamante ni moo di Aïda Mbacké Aïda Mbacké nag buñ ko waxee seen xel dina dem ci laq-laq boobee nga xamante ni moom moo daloon benn ngóor soo xamante ni moo ngi ko dalee woon foofe ca maris tal ki ko dafoon sax di te kiñ jàpp ni sax moo ko dafoon moo di ki nga xamante ni moo di Aïda Mbacké nekkoon ab soxnaam kookee nag ndiki démb lañ ko doon atte foofe nga xamante ni mooy ca euh, a criminelle ndiki démb nag ba taxawee ca kanamu euh, tribunal ba moom moomee li mu daal di xamle mooy que ni mbir boobee nag li tax mu defoon ko moo di rek wàllum euh, fiir maanaam ab jalousie moo taxoon mu daal di rek daf jëye boobee ba tax na moom moomee gannaaw boo xamante ni laaj nañ ko lu mbir ma demee moom nag li mu daal di xamle mooy que ni rek dafa daal di déggoon rek ki nga xamante ni daal moo di jëkkëram dafa rek taxoon ñaareel boo xamante ni moom moomee yëgu ko ba tax na rek loolee ba mu ko yëgee ba mu ko yëgee nag ci la rek doon uh, nga xamante ni moo di uh, téléphone uh, jëkkër ji nag di xool ca noonee nag la fekk benn jëkkëram sax doon wax ak kenn koo xamante ni benn xale bu jigéen gannaaw nag ba ko laaje moom Aida li mu daal di xam ne mooy que ni jëkkëram da ko xamaloon ni kookee nag ab collègue la waaye nag moom noonee rek la daal di damaat di gëstuwaat ba rek daal di xam ni kookee maanaam ab soxna ki nga xamante ni moo di jëkkëram joojee la ba taxoon daal mu daal di ba futu fekk ko foofee nga xamante fa fa la nekk ca euh, maris daal di koy euh, sotti li nga xamante daal di koy euh, taal mu daal di tàq noonee sax lañ daal di jëlee ngóosa moom doon ko yóbbu hôpital foofee sax la daal moom moom mi nga xamante ni moo defoon jéye ba moom li mu loxoom ya nag dafa laqoon ba xawoon sax am ay gaañu gaañu waaye nag noonee lañ ko jël yóbbu ko hôpital foofee sax mu mujjee foon amee doom gannaaw ba nga xamante ni nekkoon na rek enceinte moom nag kookee nga xamante ni mooy Aida niki démb nag mu daal jooy foofee ci tribunal ba daal xam ne ni rek moom gannaaw ba mu defee eh, jëye boobee ba tey amul benn xarit wala sax mbokk moo xamante ni mu ax mu wax ak moom ndax kat ñëpp rek dañ ko rek daal di abandonné waaye nag moom mu daal di xam ne ne rek depuis boobu ba tey mu ngi rek daal di maqarlu ak di rëcc bu baax a baax li nga xamante ni moom la daal di def ndax kat depuis ba ko defee ba tey eh, mënatul eh, tëdd ba nelaw loolee nag tax ba moom guddi gu jot rek dafay jug di ñaanal ki nga xamante ni moo di jëkkëram jooje nga xamante ni daanaka moom dafa jàpp ne rek léppam la woon ci kaw suuf moom nag ki nga xamante moo di Aida lii di procureur bi nag li mu sàq moo ñu daal ko daan euh, fukki at ak juróom yoo nga xamante ni moom euh, dañ koy rek daal di téye foofee nga xamante ni mooy ca kaso ba li leer ba leer nag mooy ndiki 17 euh, novembre bi rek ñu dëgmal la ñuy xam rek verdict bi nan lay daal di mujjee xibaar yi ñu daal di koy jeexale nag ak wàllum wér-gu-yaram wax nag ci tolluwaayu mbas mi di coronavirus gannaaw nag 1213 tests yoo xamante ni daal di nañ koy amal juróomi aadama doomu aadama képp rek ñoom ñoo mujjee am doomu jàngoro bi

juróomi doomu aadama ñoom ñoo nekk sous euh, traitement loolee mooy ndar képp xibaaru tey leen jox dig daje ëllëg ak yeneen i xibaar seen chaîne YouTube bi di Mak TV Sénégal te leen wax toujours bu leen fàtte di abonné ak di bës cloche de notification bi pour ngeen di mën a am suñu ay vidéo au temps réel